gis bu ngeen delloo ginnaaw tuuti. Mhm. vous vous compte que on a commis une erreur monumentale en monumentale. oh po monumentale. ban ban en élisant le président Macky Sall. erreur boobu la Sénégal ay def. monumentale. yàlla nag moo bindoon ni dana. fal malgré terre bi malgré terre bi malgré. Euh, Ila Touba bi et cetera et cetera malgré li ñu fi def yëpp. Ousseyn investissement waaye. Ousseyn dama jëndal ma warga ak suukar. nga def lan moom doo fa ataaya jëndal ma warga ak suukar fii grand. ah la nga bëgg lay warga. je te donne cinquante mille francs. ah jëndal ma warga ak suukar. Mhm. Euh, Ousseyn yow tegal ataaya ji ah jox la cinquante mille. Mhm. non nga dóor ma léwal bu graaw ma ne wóop wóop wóop saa yi léwal bi neex na. jiw yow foo jàngaataaya. Mhm. waxtaan bi neex ba deuxième ñëw wax ñu affaire yi jolli kër gi neex ñu pare. waaw wës ñu gisee ah. ooy ala ci ana ma ne kii bi. non wës ne la quarante sept mille cinq cent cinquante cinq francs CFA yi. non ah, grand ah. non tam bi tam yow tam grand tee bi boo ko ah. naanee war a xam ne tamit. Oh, ñaar la waa def. <laughs> dana la songu xeex bu la ëppee doole gaañ la. bu nit ñi yéexee musiba maa ba kumba am. boo ko ëppee doole tooñ ko. police la laa yóbbu wala gendarmerie. terre bi c'est ça date de loolu mooy métaphore. Mm-hmm. terre bi c'est du vol. Mm-hmm. BRT c'est du vol. am na benn jamono kilifa bi Guèye Bougane dafa doon wax. 98 milliards. Mhm. bu ma jumul mbiru PSP. ça concerne le B le BRT 400 milliards. scandale bu rëy mu tudd ci Mansour Faye. Mhm. benn yoon la ci wax. na ko kilifa laaj mu waxaat ci waay mu leer parce que cadre foofu Bougane dafa téye affaire ah, foofu war na ci wax. ci 98. Ah, waaw waaw Mansour Faye moo nekkoon ministre des waaw loolu da loolu ciy war a wax loolu Bougane loolu point bu baax la na ci wax waay man defoon naa sax dina ci wax nii. Mhm. Ah! lu problème na de doon ko gëstu. Mhm. BRT bi doon gëstu lool. BRT bi bu bon bii nga xam ne sareet yi sax ñu ngi traversé di bloqué bus yi di bloqué BRT bi. policiers yi taxaw na leen di seen loolu ne pat réew moo xam ne kenn xamul lu moo nuru. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak acte indi indiscipline la. neen jàpp yeneen yaree di ko la donc parce que boo xoolee démb rek am na benn vidéo bi bi circulé sareet bi pourquoi donc. tey pourtant bizarrement de temps en temps damay gis policiers yi dañuy taxaw foofu. waaye ñu ngi taxaw noonu déggoo waa ji filmé sax naan la policiers yaa ngi nee taxaw. mais am na loo xam ne nit ñi hmm. ñoo war sax di dellu di bañ sénégalais ñoo war def groupe ne ko eh wàccalew dégagé foog sénégalais yi di jël seen responsabilité mais problème day am ci kanam. wala ñu rek la ko ñu téye seen téléphone. di filmer hmm. c'est c'est c'est désolant. c'est désolant. vidéo bi day viral te sanction pratiquement. je je te je aujourd'hui hmm. mbiru fond secret woo. mbiru fonds politico dafa bokk ci suñu ay deal au Sénégal d'état état bu jëw dund ko ni ko bëggee ni ko sentiré mhm. amul secret d'accord amul secret mais ñoom dañ ne woon dañ koy euh, éliminer puisque bari ci ñoom dañ naan fonds boobu dafa xaram dañ doon wax dañ ko war a éliminer am dañ ko war a dindi dañ ko war a dindi loolu moo di dëgg yow d'accord nga ci daal dañ ko war a dindi loolu moo di dëgg man lépp lu Pastef annoncé woon ci campagne électorale wala ci dix ans yii ci wàllu xeex par rapport à gestion état wu Sénégal. ànd ma ci nañ ko dëggal rek parce que y a y a rien d'autre à après nag toujours on nous dit ah les réalités de l'État quand vous rentrez dedans vous vous rendrez compte que saay mm. quel que soit le ou la réalité ou les mm-hmm. réalités. Mm-hmm. quelconque. Mm-hmm. d'un état quelconque. Mm-hmm. nañu bàyyi xel yaakaar bi dafa fort bàyyi xel fi ñu jëm bàyyi xel li ñu waxoon bàyyi xel surtout possibilité yi nga xam ni nit ñi am nañ ko parce que réew mi lootul mel comme ni meloon de ku ne si dëgg rek gaa yi ànd ak boo newul si dëgg rek gaa yi commencé ruspété moo tax nguur gu bees gi dafa war a di communiquer bu baax bu hmm. baax. sinon day métti de. Hmm. donc di leen fàttali entretien du jour ñu ngi ci ànd tey ak Pa Assane Seck euh, beneen bi juraat coow ci génn président bi te ñu bari jàpp ne c'était inutile quand même bañu alimenter toile bi ñu bari di ci wax mooy déclaration politique générale bu Ousmane Sonko. mu mel ni dafa ni ñaan naa premier ministre bi woo naa waa assemblée wax leen nañu defaraat seeni loi am député bu génn ku ci mel ni Abdou Mbow ne loolu amul ñun ñoo woote waaye kenn woowuñu euh, foofu jàppoon ni président dafa def naaru njuumte wala yow ànd nga ci noonu mu communiqué. kan moo def njuumte. jàppoon ni président dafa def lapsus foofu wala ànd nga ci yow. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaw jàppoo ko ci. ci le fait mu wax ne. mu wax ni ñaan naa kii. woo naa ñii ne leen defar leen. président assemblée nationale. waaw ah. waaye yow yow si nguur gu bees gi comme moom mu ngi kaa gérer dans son temps et son rythme. Hmm. mais gars di ko tutoyer di ko tutoyer. ça s'appelle tutoiement. oui kenn woowu ñoo ñun ñoo que ngeen ñu woo leen kë ngeen ñëw rek la leen problème bi. moom kilifa gi nee na leen rek la leen seen. waaw ah. moo leen woo wala woowu leen régler le problème. mais responsabilité président assemblée nationale aussi parce que warul waruñu woon egg si fii en fait ba Abdou Mbow taxaw naan man maa woote réunion et puis ñu ci de aussi ñu ngi gis Abbas Fall naan moom il n'est pas habilité di woote ay réunion en fait donc mbir moom yëpp est-ce que responsabilité bi du aussi. Euh, président assemblée nationale xas nag le petit. tuddul turam nag mais le petit Abbas daal. mais président assemblée nationale fu mu bokkoon. <laughs> yéen yéen. non mais bi indee problème bi amee subitement amoon na nu mu dee dee benn 3 jours ou 4 jours en fait pour régler problème bi. voilà Ousmane <laughs> non yéen yéen yéen que c'est que li ma gën a metti moo di ne au vu de tout ce qui se passe nii non après ils vont occuper l'espace encore et le temps le calendrier ils vont tout occuper. gars yi réew mi war na toll feneen mais bon comme on veut comme ça nañu dem. ah parce que Abdou Mbow nee bi ñu waroon woote tey mardi bi nii sax gëw ñun dinañ ko def parce que tey la tam xarit comme si que voilà en fait benn manipulation dafa xaw a parce que kee nee na am na mooy Ayib Daffé kii xëy suba ni euh, réunion mardi bi sax xam naa duñ ko am comme si que ñoom ñooy diriger en fait mbir yi liñ bëgg mu am noonu lay am mais c'est extraordinaire en fait. waaw parce que dañoo am doole. Eh, eh, eh, pour le moment. ah donc dissoudre ko est-ce que aussi du nekk solution. Ah, en tout cas. Euh, su ma juumul. Mhm. mois de juillet bi ñaata jours ci des. pareetul ah ñu mois de juillet bi pareetul. juillet ñi ne wax septembre. yàlla ñu yàlla may fekke. da nga am information ci. aw ma benn juillet bi aw ma yëguma kenn waxuma kenn yëguma leen dama ne. Mhm. yàlla ñu yàlla may fekke tal. Euh, gis naa Aminata Touré muy annoncé point de presse. Mhm. ou conférence de presse. que c'est quand c'est demain ou. demain waaw 17h incha allah c'est 17 bu subaa incha allah. waaw hmm. Aminata bu defee point de parce que contexte bi ñu dafay tontu xëy na. Euh, non non non leen ko rek fexe leen yéen ba déglu Aminata Touré bu baax incha allah. Hmm. kon farata dem fa farata la déglu ko. Eh, bu ko kenn rate wute. dem leen fa dee. ah suba ku fa dem am lu bees. Ah soo feree la de kon xëy suba incha allah ma ku fa dem am lu bees yaa rek dem leen dem leen dem leen taxaw. Eh. c'est c'est dommage quoi qu'on en soit là trois mois après. c'est vrai que bon kilifa yi ñu ngi si dossiers yi et cetera et cetera on attend de voir. mais non. yàlla na yàlla dolli sutura Sénégal de façon moom bëgg-bëggam boon mi ngi koy wax et puis nëbb ko mooy ñu tas assemblée bi donc moom. obsédé wu sa en quelque sorte ci loolu en fait. est répétition rek la nar a defaat suba. yow bëggoon tas assemblée bi man au début dama doon wax non nañ leen bàyyi ñu continuer un an yàggul parce que 15 milliards jëlaat di organiser ay élections. loolu yàq bëggoon waaw mais am na koo xam ne nii nii nii boo jàppul loxoom nii mooy loolu de. Mm-hmm. foo xam ne fa tolloo da ngaa loxo waa ji. da nga ko xulil da ko naan ñàpp téye nii ñàpp taxawal. foofu lañ toll APR parce ñoom am nañ pas-pas ak la boo xam ne bu doon ñoom la tey jii nii. ñetti weer nii bu doon APR. Ah, ci contexte bi ñu ne waa passif li ñu def ci réew mi. Euh, innaaru la. laa ilaaha illallaah. kon nga gis loo musul gis. ñoom ñëpp la ñuy nguufaan. population bi naan ni waay. bon on a entendu le président dire bëgguñu joxe cette impression que nangam nangam man.